tax ñu xam ni sët daal bu doon ne maam ja baayam ya sopp ko dama tëdd bis man bay nelaw rekk daa di tiit mu mel ne dama gis alxuraan man ñu fàtte ko malaaj ko mu daal may wax ni man ndékki laa deful ndeleg-leeg ñu jox mas añ akas tip maraare ko ndadaa am ku daa ndékki ci man alifun banaas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 xasaayid yi ñii ko i jàng sëñ bàmba sédde ko gannaaw alxuraan lay fonk def ko ni ab dundam xasaayid yi ñii koy jàng sëñ bàmba sédde ko ku dib jàngkat boo xam ne siiw na te am xorom mbiram yépp daf koo jox sëriñ mbàkke dénk ko sëriñ seexloo sëñ wadd ak fallu njaay a ngi te Ibra Kebe Xaadim Kebe yow li maale ko Serigne Dame Seck Baye Moustapha Kebe Madina Serigne Baara Gay Njaareem Serigne Ndam de doy na ko Serigne Bada Njaay Poofoon Serigne Mbàkke Cuuna ngi Serigne Daam Gay Sëñum di Seck limaale ko Serigne Mbàkke Seen Njiim Jang Matar Gay ku baax ngi ma jóob gay ko xam Seex Ibra mar de xam na ko sëriñ Mbàkke Géy mbay looja alxaaji sekk ngi sëriñ Njaga mbay ñaamar ku baax ñépp xam na ko sëriñ Seex Ture sëñ Baara mbay bàcc jaañ gi sëriñ Fallu sëy Seex Wàdd sëñ Seyli maale ko tebul fàtte dan taalit tebul fàtte jaani mii amaat na ñeneen ñoo xam ne jombul ma tudd ko xasaayiti sëñ bee ngi da ko ab ko ci biir alxuraan moo tax ñi koy jàng topp ko sëriñ Mbàkke Madina daf daareem di yëkkati di wax ca kaw ci teewaayu baayam waa tundu di de xam na ko xasaayit bu àndeek alxuraan booba wàcc na